yaaro ci mboolem lawlu yaw fallilo yaay Mustafa yaay muntakal yaay walliyu géejum bindeefi ay gi neex na Mbàkke Seex Fallu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen balu ak di leen nuyu ci weer wu sell wi nga xam ni mooy weeru rajab di weeru julli nga xam ne al isra wal miraj ci la amee woon seyduna muhammadin ali salaatu wasalaam bàyyi ko makkatal mukarama dem al beytal al muqaddas jiite fa yonent yépp soog faa riñaane dem ci malakutul ala ci suñu boroom saafoonteeg moom mu jox ko julli juróom kon muy weer bu mag woo xam ni saa su ñëwee ñi nekk barsax ñu leen doon mbugal ñooy jëkk a yëg ni weeru rajab ñëw na ngir mbugal yi ñu doon ñu doon mbugal dañ koy teg ci seen jëmm ji ba keroog weer wi jeex euh, kon weeru barkel la euh, weer la woo xam ni itam ci ñun julli ji fii ci Sénégal wàll yu yàlla wu màgg wa jàmbari cheikhul xadim ji cheikh Mouhamadul fadal radiyallahu taala anhu ci la feeñe woon jamono ñaar fukki guddi ak juróom-ñaar ci weeru rajab nekk ñaar fukki guddi ak juróom-benn yem ak incha allahu altine 24 avril muy bis boo xam ni dañ ci fàttaliku bi mu ganee àddina moom cheikh Mouhamadul Fadel nekk ñaareelu xalifa cheikhul xadim moo tax Cheikh Sidi Maxtaar di siyaar ñëpp tey ndokkeel ñëpp tey sàkku ci jullit yëpp rawatina taalibe yi muy sàkku ci ñëpp ñu ñëw fii ci Touba fekk si abul baraka cheikh abu mi nga xam ni mooy xalifa cheikh Mouhamadul Fadil ak njabootu sëñ Fallou yëpp ñu ànd ak ñoom ci màggal gi ndax wax na ni cheikh Mouhamadul Fadil liggéeyal na Sénégal. liggéeyal na lislaam liggéeyal na cheikhul xadim loo xam ne bu bisam ñëwee lu way jàppoo noonu war nga ko bàyyi ñëw ànd ko ak moom màggal ko ni nga xam ni la ko soxlaa ndax cheikh Mouhamadou Fadil ku ne xam na ni li fi mu féete sëriñ bi ak li sëriñ bi wax ci moom saalika fadlullahi rek doy na ci kon moo tax cheikh Sidi Moxtaar di sàkku ci ñëpp mboolem taalibe yi mboolem yi lu waay jàppoon su bis bi ñëwee nga bàyyi ko ñëw fii ci wetu Cheikh Abou ci njabootu Cheikh Mamadou Fadel ñu ànd màggal màggal gi te ñu jiital ci njàngum alxuraanul karim ak xasaayidi sëriñ bi ak zikrullahi ak salatu ala nabi ak tasbih ak tahlil ak lépp lu waay man te ñu yéene yool bi Cheikh Mamadou Fadel te ñëpp ñaan yàlla defal ñu jàmm ci réew mi ñoom kilifa yàlla yàggal leen fi ñuy ñaan itam ñépp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ak salaam ñuy sàkku itam ñi nga xam ne ñooy indi nit ñi di borom oto yi ñuy sàkku ci ñoom ñu def ndànk ndax jamono ji ñu nekk xam nañ ni dafa tàng ku ci yor oto boo xam ne baaxul day gaaw a sofe te lépp day indi ay gàllankoor kon waaye lu ci mën di am sëriñ baa ngi ñaan ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te kenn bañ cee xureeku muy ñaan itam képp koo xam ne teg nga sa tànk ci màggal gi ci bis boobu mu woote eh, yàlla defal la ak njégal njëggal ba faw bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam ci barka cheikhul xadim wa axiru daawana an alhamdulilahi rabil alamin yaaraw ci mboolem lawlu yow fallilo yaay Mustafa yaay Muntakal yaay wàlliyu géejum bindeefi ay gi neex na Mbàkke Cheikh Fallo